te di leen wax ni film bi neexati na neexati na ah laala toj nga fi toj nga fi buñ la joxee marto toj nga fi la joxul marto toj nga fi waaw boobu maa ragal dëgg li nga wax Cheikh lépp léppay dëgg waaw lépp léppay dëgg te li nga wax docteur bi tamit léppay dëgg Sénégal ñun ay jigéen lañu chaque jour ma wax leen ko ne leen li dal laal la comme fi daloon xoola nga daanu ay yësit waaw waaw maa ragal dëgg ku ne naan Marème Marème Marème moo ne ci dëgg Marème moo ne ci dëgg imagine nga jël sa gel indi ko sama digg lal mu miin sa lal xam la yow yaay kan ñoo say sa kër wax ma muy changer ay meuble di changer ay décoration di changer lu ne mel ni kee euh, moom dañ ko maanaam tekkitu dara ci biir kër ga te lépp góor gee ko waral léegi nag moom maye pat ak réglé ngeen di wax lalla nii laala naa laala nii laala naa ma ne laala yaa ne ci dëgg bul puus oyataa gis nga li la dal comme daloon nga def lu raw li nga def maa la wax lii man yow laa àndal ba tey ni suba di ngoon waaw jalika yaa mat yaa am fulla yaa am fayda yow yow joor doo dara parce que ni nga doxalee nii ku nekk dara du ko doxalee mais neex nga ma torop yow ma ne ko neex nga ma torop yow film bi daal neex na neex na trop biram nag su ma sañoon mareem yow li muy biram di lux luxi di nga ko topp ba xam ko lan la comme yooyu nag yaa na ci film bi caaye ju ne nga yor ko yore caaye biram nga xool li muy li muy muy lijjanti lan la mais man daal laal la noo laal la kontaan naa kontaan naa ci yow fi nga ko jàpp foofu la bul puus oyata Sénégal ba leen wax ji ba leen wax ji am ko laal la ko indi ko laal la yaa ne ci dëgg tey yaa ci nekk suba ñaareel yi fàtte ngeen sonal ngeen ñu tar ngeen ñu trop. salaam salaam sama waa kër di ngeen nekk maîtresse d'un homme marié nag moom mareem làpp lu may faral laala moom ni ma koy faral ba parce que laala day tooñ laala saa bi day xañ kii boppam Cheikh Diagne boppam loolu bokkul ci sëy loolu du rafetal kii bi ne waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV waa ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di am mbégte si yéen. waa te di wax ni kontaan nañu lool démb ci série série démb bi waaw kontaan nañ ci torop torop torop li liñ ci jàngat bëri na bëri na li ma siy jël rek mooy corruption biñ ci wane rek ak santé bi ak ak ak jigéen ñi pour ñuy dal te xam ni métti bi fépp la waa ci diggante pa papay rakki ak ak euh, beneen pa bi waaw foofu ñu ngi fiy jàngale rek li ma fiy jàngat daal mooy ni pa bi doxalee. xel la jaay waa ji ndax kee ma nga ko doon jaay doole di ko jaay xaalis di ka wan xaalis insister pa bi dem na ba sës na mu jël xaalis bi dem gis nga loolu corruption bu fekkoon nit ñi noonu la ñuy demee bu la nit di jaay xaalis nga jaay ko xel nga jël li ngay def jël ba pare dem dem jaar ci suuf def li ngay def waaw bu ñu ko doon def rek léegi corruption bi arrêté muy côté domaine bi yépp nag mu ci santé bi ci école bi ci lépp surtout ci tali bi waaw bu ko nit doon defee noonu rek léegi corruption bi wàññeeku waaw xaw waa di ñëw ci Lalla ak jëkkër ji kan côté santé bi ñu def jigéen ñi sonn nañu wax dëgg yàlla faju nañu bay bëgg dee ci infection bi bi ñu ko waxee démb moom dama jubile dama dama dama jubile dama kontaan ndaxte ay couple bu ñu nekkee bu infection amee ñëpp a war dem faju ji foofu moom génnee nañ fa leçon bu am solo solo solo te ku góor ki mi ngi posté te dafa war a xam ni santé bi pour ñoom ñëpp la ndax nee na ñun ñett ñëpp ñoo war dem faju te wax na dëgg ndax infection boo fajoo ba sonn it kee fajuwul bu ñëwee dalay dalay dalay wàllaat rek tey moom waa santé bi ñëpp war nañu kontaan ci leçon boobu ñu joxe ci nit ñi ndax sonn nañ ci faj bi jigéen ñi sonn nañ te góor ñi duñu nangu faju même chose la ak njàkkum doom bi rek defe nañ ni jigéen ñi rek ñoo war faju góor ñu toog foofu moom leçon bu am solo la boo xam ni dañ ko war élargir bu baax a baax a baax ba ñëpp jot si waaw te xam ne nekkul lu ñuy lu ñu lu ñu war a sofental lu am solo la lu am solo la macha allah. Eh, di wax tamit ci côté jigéen ñi di leen wax ne nit ki nekkul ne lu nekk sa xool rek dafa war a feeñ ci sa kanam comme ku jigéen googu dafa war na ni moom rek moo am problème te ñëw fekk na laal la foo fekk laal laa ko ëpp problème macha allah bravo laal la ci réponse bi mu ko jox. Eh, li li li ñuy seetaan yenn saa yi si nit ñi di wax rek ñu naan cin luy baax la waaw roq bu roq bu roq bu ñu roq ba ni tekk rek gor ñaa fa nekk fépp la me fépp la mettee. problème bu jigéen ñi moom metti na Sénégal série bi moom lu ñuy wane ci jigéen ñi metti na metti gu nga xam ne te boo gisee cause bi toujours góor ñi la te yi jigéen ñi ñoom ñoo koy subir série bi moom presque moom loola boo seetaanee ca njëlbeenu commence woy ba rek juróomi jigéen la ñu nga xam ne si ku nekk la muy muñ la muy woyaale te boo xoolee eh, cause bi toujours ci góor ñi la te jigéen ñi ñooy ñooy payer les pots les pots cachés waaw te jigéen ñi war a xam ne tamit dañu war di dal yenn saa yi ndaxte boo gisee ci anniversaire bi maire bi gis nga nit mm, mm, kilifa am na noo xam ne boo ko toogee danga nga war tëddee njaaxaandaay am na yenn discours yi nga xam ne si day day taal daay moom heureusement ba ñee dalee ba répondre ñu ko ndax buñ ko répondre mënoon na indi benn problème ñu nës nësal xam naa ruusee nañ ko seen jëkkër yi wala dara nit liñ naan kilifa bu ma amee sutura moo ko may boppam kilifa boo bëggee ñu respecté la am na yenn discours yi nga xam ne doo ko doo ko di wax waa liñ naan fen buy defar ak wax ju neex sarax la fen buy defar euh, moo gën euh, dëgg buy yàq am na yoo xam ne si pour taakale nit ki la pour pour clasher ka pour indi problème borom kër warul tëddee noonu jigéen ñi maire yi fay tëj ci côté boobu ñëpp tey seetaan mair boobu te nekk position boobu nañu jël foofu noonu leçon am na foo xam ne noppi moo gën noppi fa moo gën ndax dangay gën a dajale sa ay njaboot euh, pour jàmm kuy wut jàmm am na yenn discours yoo xam ni waruloo ko yëkkati. te jee jëlikaa moom tamit démb moom moom faanaa ko torop wax dëgg yàlla faanaa ko képp ku nekk position joor joor moom xam naa dafa dafa dafa rus rek ndax boo gisee nu muy comporté woo dafa gêné wu dafa gêné wu ndax defe woon na ni liberté lay ñëwee foofu wala bànneex te yenn jigéen ñi nekk ci position joor dañu war a xam ni góor ñi bu ñu génnee ci sëy automatiquement ñu ñëw takk la euh, jabaru faj mer lañ lay def nekkul ni mbëggeel moo tax ñu dugal la si yow ndax amagu ci bànneex amagu ci bànneex ça diir dire que ni moom bëgg na jabaram ba léegi joor mi ci dugg tamit situation moo tax mu dugg ci mais du du du du du woon du woon euh, mbëggeel problème la leen di indil rek te lépp ci kaw xale bi lañ koy xëpp xale bi moom deful dara xale bi moom deful dara waaw euh, série bi moom am na solo torop torop torop ñiy paye pot yi daal mooy jigéen ñi ak xale yi nit ñi dañuy def seen njombel lu ni weng fee jigéen ñi ñooy fay loo xam ni seen yoon newu ca wala xale yu ndaw yi waaw yal yàlla def jaamu yàlla may ñu dégg ak topp te ku nekk fa nga ca nekk fun la laale rek nga jëlee fa leçon leçon yi ñu koy répartir ñëpp dégg si jot si yal na yàlla def jàmm yàlla may ñu dégg ak topp def jaamu ci Sénégal jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah bi nuyu naa leen ziyaare naa leen ci ngeen nekk bàyyi nañ ci jàmm bu baax waaw seetaan nañ série de maîtresse d'un homme marié neex na trop macha allah série bu neex bu waaw mais man sama gis-gis man que laal Lalla bonul la comprendre naa ko bu baax Lalla waxam la wax c'est que tey feebar boobu noonu mën naa dem ba indi leneen muy infection dafa doon lu danger lu grave dafa doon loo xam ne dañ ko war a traitement ñoom ñoom ñett ñëpp muy lu am solo Lalla lu am solo la wax lu dëgg man gisuma bonam de gisuma bonam problème yi muy dund nii sérieusement am na ci jigéeni sénégalais yoo xam ne bu fekkonte ne moom la ñuy dund wallaahi la azim kon ba tey kenn waxatu ko. Euh, def nañ interview nañ def nañ lu nekk mais moom dafa ànd ak dal ànd ak sagoom def tekk-tekk nag maye patt bi maye patt boobu mu wax moom la réagir ci biir këram moom la doxal Marème man mënu ma sax comprendre Marème dafa ëppal Marème dafa con Marème dafa dof non man Marème daal mënu ma comprendre jigéen da ngay def tekk tek gis nga laal la wax na dëgg jigéen da ngay jëf te doo wax gis nga sa wax bare rek. nga ñàkk fayda jëf na ëpp solo ci wax ok asalaamaaleykum sama waa groupe maa ngi leen di nuyu ci suba gi di leen siyaare di nuyu Morodi TV théâtre bi neex na torop série bi démba neex na neex na torop bég naa ci joor démba luñ ko def de laa ilaha illallah non jalika jaliko moom dama ko support torop torop torop dafa am fulla am fayda moom dafay wax fulla ak faydaam rek yow joor nu muy def xale bi nii yow kii tey la baadeem bi ah mu naan ko baadee bi jeex naa kii yu ma xamut joor mi dafa nëb de kii non billaay joor war na muy seetaat mbiram nag dëgg na muy seetaan mbiram waaye Demba gàcce am na ko de rus na torop parce que moom Demba wartoon a def benn jolus wartoon a jalus wartoon a def dara moom Jalika moo war a jalus Jalika deful loolu noonu moom dafa waroon a toog. waaw def li mooy def ñoom ñoom ñu féetee baade bi waaye muy def yi fa yooyu noonu yëpp yooyu yëpp amul sens fu nekk gàcce amul ko nii Jalika wax na ko lu mu koy wax ba pare te mu koy tontu romb na ko fa dem yoonam ah, def na lim def kay léegi kay na téye xale bi rek waa ñu nekk si jàmm salaam moo tax Jalika lu mu ko wax dégg la su ma bëggoon jot si biram yow doo si jot te wax na dégg tamit ka dafa suur biram bëggatut ko suur na ko. joor nag loolu la xamut joor moom dafa war a def ndànk ndànk rek loolu la war a def non dama ko support naa trop Jalika support naa ko de laala tamit mu ngi man support naa laala trop mu ngi seen raay tam waaye meeram moom du nit dara safu ko moom dara yëngalut ko seen série bi neex na trop am na solo macha allah kontaan na trop si yéen. asalaamaaleykum waa panel bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare. leen jox seen wàccuwaay di ñaan sama audio bi fekke leen ci jàmm man la Maguette madame Silla bi ci Italie Bergamo ay yéen ñëpp a ngi ci jàmm rek maa leen di siyaare lu baax a baax di ñëw na ci suñu film biig bi dama jàppoon moo taxoon boobu ba léegi dugguma woon jox sama xalaat daal ah film bi moom neexati na sax laay wax neexati na faanaa jalikana jalikana ku am fulla am fayda waaye na si yaayu seex ji moom sikk na de <laughs> ah yaay ji moom sikk na moom moom day tax ñu sikk yaay rek te yaay melul ni melul ni moom de sikk na moom wax dëgg yàlla dafa war a boole ñëpp uuf nax moo leen jaboote doy na waar metti na metti na lool na laal la moom nañ ko bàyyi muy dof doflu foofu rek dafa dof ñaaw xalaat bu ñaaw rek tax muy tuumaal mareem ak seex loolu baaxul lool kenn du ko def boo moytuwul na aqi mareem na ko dal na na bañ a def attention rek Marème moom na jàpp fi mu jàpp rek toppatoo këram toppatoo jëkkëram man loolu laa koy conseillé ñaareel moom day diiñ xam boppam waaw moom day def boole dara ki wax laal la na moom dafa sànni nañ ko bàyyi rek mu gën a dof <laughs> tax na dero aawa yëpp yàqo la yàq na dero aawa yi del wooyee sa alaaji bi na daan def àjjana waaw de ko wooyee àjjana di ko toppatoo yewit wujju du dara bokk wërsëg rek la <laughs> bootal mareem waaw ba tal Marème de Marème sa rakk la na laal la yoot bàyyi ngay def na ma ne ko bàyyi ngay def doy biram na moom bëgg a tas kër gee tax mu sàcc ceenu jàmbur gi bëgg indi ay problème si biir kër gi moo tax biram def li mu def ëpp na moom it sàcc baaxut <laughs> nee ko na ko delloosi nee ko na delloosi takkaay bu mu ko yóbbu wala moom la jaay dem duggali ko doom ji ay feet feetu feetu kii bi <laughs> yaa tas kër gi de waaw ah, maa ngi leen di sant yéen ñëpp na di leen siyaare loolu laa amoon si lu may xalaat maa ngi jégalu na bu baax a baax a baax ndax wax yombut maa ngi jégalu yéen ñëpp ñi si biir panel bi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié nuyu naa leen kontaan naa si di TV waa Jalika kontaan naa démb si acte bi rafet na mais Lalla kontaanuma dara ci yow aaw yi moom bëgguma ñu mel ni man aaw laa mais bëgguma ni ngay def ni ngay joué daal neexuma su ma mënoon nga changé tuuti waa kay. waa mën maa ñëwaat ba tey di jégaluwaat bi yoon moom ci problème mu seex ak feebar bi ko laal la wax ci lool lañu lool loolu laa bëgg a waxtaan parce que am nga na ma yàlla baas ñu ma ko war a wax góor ñi ñu su bari dañu suñu seen jabar na leen ne dañuy na feebar rek dañuy commencé gis seen bopp te pourtant jëkkër ak jabar lépp lu nekk ci jëkkër ci jabar rek jëkkër moo ko war a xam lépp lu nekk ci jëkkër jabar moo ko war a xam. am na ci góor ñoo xamante ne bu leen seen jabar ne la dangeen a feebar dañuy siis wala ñu xalaat leen dëgg la leela laal la instant bi mi ngi wujjee mais pourtant li mu wax seex euh, loolu feebar la moo tax instant bi moom seex mënul gëm laal la moo tax benn instant laal la dafa yàqal boppam depuis le début bi bu fekkee sax dafa feebar sax laal la mënu ko gëm seex euh, mënul ndax wujje gi nga xamante ne boobu la jëloon teg ko ci ci ci xelam ba léegi moo tax instant bi même bu fekkee feebar bi mu ko wax dëgg la sax Cheikh mënul gëm ah, Lalla côté boobu moom Lalla dafa liggéeyee liggéey ba ba ba dara desul lu dul mu toog géré ko yàqaat lépp mooy confiance bi nga xamante ne gis na ni ñoom ñaar dañuy sëy mais kenn ku ci nekk amatoo ci sa morom confiance c'est que xam nga basu Lalla dafa fës rek mais instant bi Cheikh moom sax amatul ci Lalla confiance ndax li tax mooy am na yoo xamante ne yàq nañ ko te man dama xam moom ën daal wax dëgg wujja daal la ñuy wax ne bokku wërsëg la te loo xamante ne nii yàlla suñu borom moo ko bind ca ares loolu man pour man daal dañ koo war a ñeme aussi itam góor ñi ñuy régler seen kër yi ndax kaa yu ci baree bari rek góor ñi ñoo koy indi ndax su fekkee ne yow dangay man damay wax ne ki may doxaal ñëw te ñëw di xas aawoo kooku soo ci duggee bu ëllëgee lu la ca fekk yow la góor daal bu fekkee mi ngi ñëw di la doxaas nag day tagg aawoom kooku au moins sa war nga ko jéem a jéem a ñeme tuuti man daal li ma mënul concevoir mooy naka nga ñëw di ma doxaan si lu nekk nga di ko wax sa aawo sama aawo nii sama aawo naa loolu moom ma dëgg man ci yee sama mbokki jigéen ñi yëpp rawatina célibataire yi waaw ñu xoolaat bu baax daal boo gi xoolaat bu baax suñu dugg ndax góor ñi moom ñama yàlla baal ni ma ko waxoon sànq rek daal doy nañu waar torop torop sax salaamaaleykum ñun waa Lu Xew TV ñoo di ziare bu baax a baax di ziare ñëpp daal wax di li wax seen euh, kii bi am na solo torop macha allah am na solo aussi série bi tam am na solo torop ndax man nañ ne ñun li ñuy dundoo ci kër yi rek loolu la ñuy théâtre mais man benn question rek laay laaj euh, Sénégal léegi dañoo bëgg a def. Euh, takk deuxième femme daal crime lañ ko bëgg a def léegi ba tax dañuy créer yenn affaire yoo xam ne day décourager loo sax ñi nga xamante ne takkaguñu ko aussi Jalika itam chaque jour rek ñu ngi jigéen ñi dañoo war a yeewu ci xarit man de sama mbokk jigéen ñi laay waxal man de aw ma xarit su ma waree su ma waree am xarit daal na nekk sama yaay te aussi itam sama yaay sax lu mu nekk nekk sama yaay sëy ci boppam dafa war a nekk loo xamante ne secret la war a nekk mais waruñu def lu la metti rek sax sa yaay sax waru ko xam rawatina sa xarit ndax sax suur dañuy wax ne àdduna dafa gudd tànk euh, du bu reer mais lu mat a sedd la ci àndandoo moom ca seytaane dafa bari doole te euh, joor bi muy ñëw ci kër gi dafa tegoon Njalika bët moo taxoon mais mësu ko woon bëgg ndax am na yoo xamante ne su ko bëggoon rek dina ko joom def dem di nangu jëkkëram ñu ne deeta waaye mu ñëw di mettital doomam ca xamul na lépp lu mu laf dara ndax moom moom joor am na doom ca xamul doomam boobu lan lay dund fale kon bor bu muy dab la boo xamante ne tôt tard dina ko encaissé léegi-léeg ne la ñuy wax ne sax suur yaay dina euh, doom dina fayeeku bor boo xam ne yaay moo ko leble woon mais joor moom tôt tard dina man su ma nag lu metti liy jar lii liy ñëw du du dal doomam moom joor ci boppam moom moom mooy subir lu metti li mais itam boo buñ fàttalikoo ci ginnaaw problème mu joor maanaam Jalika bor boo xamante ne yaayam lépp lewoon na ko moom lañ koy fay moo tax ñu jigéen ñu ñu war di sëy di segga suñu sëy yi bu baax ca xam ne am na yu bari yoo xam ne gàllankoor bi du nekk ci ñun ci suñuy doom lay nekk ñi ngi jéggulu ñëpp nag ci ojo bi su guddee mais vraiment série bi am na solo yéen tam wax dëgg yéen a ngi bu baax am na solo trop kontaan nañ bu baax a baax di ziare mbokki taalibe yëpp rek yëpp koo xam ne yaa ngi participé ci émission bi am na solo macha allah série bi moom am na solo am na solo lool ndax heure boo ko seetaanee rek diñ ci am jàngat aussi di nga liñ ci teg dina gis ko ko dund wala yow sa jëm bopp di nga ko dund te loolu mooy série vraiment am na solo torop yéen tam seen kii bi am na solo torop sax ñu ngi jaajëfal yow laa la Pierre Ndiaye. yow dama laa mere. ndax yow ni nga jonga maawee waaye nga jël marem rek def ko un du mu yóbbu sa fit bi te yow sa mat ni nga matee woon de diiñ mat dellu doon jeeg piir loolu neexoon na ma ci yow mais fi mu nekk nii daal danga bàyyi xel lépp da ngay doxaale marem yow wujju du dara yow tamit sóoraale woo dangaa sóoraale marem ba ëpp ak yow rek. sa cafar cafar rek nga jël ma dem rek bàyyi ko xel mere naa la ci torop façon boobu neexuma Lu Xew TV maa ngi ne nuyu bëgg a commenter ci seen série maîtresse d'un homme muy série bu intéressant vraiment neex na torop mais yow joo nit ku bon nga yow warkat bu mag nga yow yaa ngi tax sax yaa ngi may bëgg soof waaw Marème nag ku ma estimé la parce que dafa naturel ci léppam nag man daal Marème neex nga ma waaw neex nga ma lool jali ko aussi femme bu mat la bañu ma loolu ci xale bu ndaw waaw franchement épisode 41 bi daal jalika ni nga def daal bañu ma loolu bëgg naa loolu di leen encourager waaw nekk leen ci jàmm asalaamaaleykum lu xew TV maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ziar waaw man li ma jàngat si émission wu 42 bi xaw ma wa 40 42 bi waaw donc euh, li ma ci jàngat daal euh, bari na waaw macha allah euh, kii di joor moom gën gën na manquant boppam gën na rabese boppam waaw ndax ñun jigéen ñi ñaanuñu yàlla sax mel noonu walla bay def loolu joor daal. Euh, affaire jalousie daal la fi def yëpp si yëpp ba tey nag bàyyigul jalika mhm. naka bàyyi nag jël na jëkkëram na dox doxam te may ko jàmm wa noon la jalika sax ni ko tontoo noonu la ndax gis nga nit doo ñàkkal de sa bopp waaw ndax ki muy def noonu xale la comme yaa jaa ngi nag présent nag naka defante moom loolu mu tax jalika war naka kii may ndeyam waaw mais joor eh, kii joor daal rek rawul daal fu dëgg yàlla man daal jooram a gën a metti ci série bi waaw li jëm si wàllu eh, laal la ay waay laal la wax àjjana waaye loolu lañu xalaatu xaaroon si laal la tagal yu baax yi ah, defal ba mu baax nga wax àjjana te muñ rek waaw fu dëgg yàlla te muñ rek waaw ku bëgg na jëkkëram tere ko dem fay wala mu tas donc na muñ rek te yàlla tax rek waaw mu ngi noonu te te xool ci ay fansaam yi waaw te mu uf mareem rek waaw kii di Bakary nag moom gis nga fi lu waaye leen rek say loxo lay naaj yàgg yàgg dinañ ko jàpp waaw mu ngi noonu donc loolu rek la jàngatal daal nit looy def lu bon rek xamal na bés ñëw dinañ la jàpp. loo am doole ak loo am puissance ala kulli suñu borom dina jàpp donc maa ngi bañ a guddal di leen sant di leen gërëm yala yàggal leen fi te may leen bonne continuation wala bonne soirée. salaam salaam na ngeen def nuy naa leen yéen ñëpp nuy naa leen bu baax a baax yéen ci jaam dem moom film bi neex na trop neex na trop kontaan naa ci lal vraiment nu mu consolé femme boobu dalal ko. waaw jigéen bu baax noonu ngay def boo amee problème kam fule rek xam nga rek yaa ma gën a xam jikkoy sénégalais moom waaw lépp ci sutura daal waa kontaan tamit ci Jalika Jalika moom démb kontaan naa ci moom noonu la jigéen dangay am fula <laughs> kontaan naa ci moom bu baax vraiment film bi neex na démb trop neex na neex na neex na daal neex na daal neex trop merci beaucoup. waa asalaamaaleykum. yéen waa euh, Mataraas ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen nii bu baax di rafetlu série bi dëgg yàlla am na solo loolu ndax comme ni koy ñëpp waxee rek kenn ku ne dina ci gis boppam ndax euh, li ñuy suyee noonu actualité la xew si jamono ji euh, kon mm, wax dëgg yàlla ñu ngi koy suivre bu baax ndax bu njëkk sax ñun daawuñu ko suivre ndax. xam rek euh, wax yi mu doon ñu ci doon dégg moo tax daan ko nangoo suivre waaye bi ko tàmbalee suivre ba léegi moom ñu ñi ci xam xam nañ ne actualité rek leen si wax waaye xam na am na ay kii yu ndaw nag waaye euh, euh, yooyu ñoom ñu gën cee waxtaan rek gën gën a defar rek mu gën a defaru waaw ndax tamit Sénégal réew dina la bu ñuy suyee tamit war na ni man di dolli worma ji bu baax comme lu dema ni mare moomu am na ñu koy wax euh, ah, parfois ma def yu sexe loolu tamit wax dëgg yàlla mën naa ñàkk ndax mën naa suyoo rôlam suyoo ko mu rafet te du eggi foofu wax dëgg yàlla moom ku ñu neex la waa di ziar ñëpp nag di jégalu bu baax di ziar ñëpp rek di leen bu baax di rafetlu xam naa tey ji la ñuy door a dugg ci ci ci ci whatsapp bi. waaw incha allah rabbi yeneen série bu ñu ko seetaanee dinañ ci gën a indi suñu xalaat bu baax di leen dugg si nañ. asalaamaaleykum Lu Xew naa leen yéen ñëpp di leen ziare di nuyu waa Marodi yëpp di di leen di nuyu képp ku seetaan Marodi rek maa ngi leen nuyu bu baax di wax ne sànq pot Cheikh Diagne vidéo bu ñu def seetaan nañ ko. waaye dañ ci am tuuti commentaire rek boo xam ne mën nañ ko ci commentaire di wax ne Cheikh Diagne yow danga wax sa biiru wax nga dellu yeeyaat nga dellu eeyaat sa bopp sa biiru wax ndax danga ne pompiteer bu nëb benn pompiteer bu nëb mun naa yàq saako li nga wax noonu dëgg ju wér la yow dangaa wax yeeyaat sa bopp dañu wax ne lii baaxut loolu seppi leen ko sànni ko fële waaye bul jëlaat pompiteer bi di ko tegaat fu tooy foo xam ne dina yàqaat beneen ba mujj yàqaat saako bi li nekk ci pompiteer bi yëpp dina ko mujj yàqaat te boobaa dootu leen jëriñu te dootu leen jëriñu te pompiteer bi da koy sànni du ngeen ko jëriñoo keneen du ko jëriñoo film bu ngeen koy wax théâtre bu ngeen koy wax pour yee doomu aadama njaay moo tax ngeen wax théâtre waaye loolu ngay joué man mun naa ko sama morom mun na ko bind lii lañ bind lii nga koy waxee nii lañ bind nii nga koy defee waaye dafa fekk ne théâtre bu ne théâtre pour yeete moo tax ñu ne man bu dee maa ngi jëf-jëf ju bon ma xool laala laal di jëf-jëf ju baax ma xool ne fu mujj ëllëg mu jëm rafet na mu jëm neex na man dinaa bàyyi sama lu bon xool laala man su ma nekkee sama lu baax ma xool laala mu dem ba ci yàgg mu mujjee bon man fekkoon dama dem ba ci yàgg mu mujjee bon ma xool laal la ma xool ne mbonam gi dina mujjee foo xam ne du rafet mu jëm du rafet man dinaa aleeraat dëppaat sama baax baax continuer ak dem ak moom loolu moo tax ñu ne théâtre loolu moo tax ñu ne dafay yee doomu aadama njaay yow Mayrem bu dee danga nga moom ngeen ko xaw ma ngeen dem fan xaw ma naka genre yooyu muy def noonu moom la nit ñi di bañ ndax lan la dëgg lañ xam nañ ne jëkkër ak jabar moom fu nekkee fu nekk dinañ def yenn waaye dangay ngay def ngir théâtre ndax yow da ne wax ju yegg dafa ko moom waaye jëfin bu yegg itam dafa koy def. ndax tey boo Marième solo yenn solo ni yow nga solo yenn solo ni baaxul ndaxte bu du dara bu nekkoon ñun jeunes rek ñoo koy seetaan amul problème waaye kilifa yu koy seetaan ngay sóoraale te da am na ñoo xam ne bu ñu koy seetaan ak seen doom ñooy nekk kon am na loo xam ne jaru ko danga koy daw tey bu ngeen demee nga sol lu yiw moom mu sol lu yiw dinañ xam ne kat lu mu nekk théâtre la waaye jëkkër a jabar buñ toogee passé nañ sax foofu waaye nga solu sexe moom tam mu solu sexe si ñu koy xoraan toog suñuy doom ñu koy xoraan toog suñuy parents day dem ba nga xam ne day toog ba si yàgg da ngay dégg mag ñi ko seetaan ndax da ñooy théâtre film bi dafa salte théâtre dafa salte te mën nañu dem ba aaye ko seen doom te bu baa nekkatul yeete loo xam ne yeete la boo koy def wax ju yegg daf moo ko xam wax ju yegg dafa ko moom kon jëfin bu yegg itam daf moo koy def bu dee da ngeen a yeete da ngeen def lu rafet loo xam ne ko gis dina xam ne lii kat da koy def waaye njàngale lim nekk théâtre moo tax ñu defee ko nii waaye bu duutoon théâtre duñ ko ko defee pourtant théâtre yu njëkk yi man dama koy seetaan ba léegi dafa neex te amutoon yu yu yooyu amut ko te boo ko seetaanee da nga ciy sant sa bopp sa xol tooy si yow nga xam ne li ngay seetaan ni que théâtre la te li muy wax dafa am te yéen seen théâtre bi dégg naa nga naan buñ duggoon ci ay kër laajte dina bëri ñoo xam ne dañuy wax ne théâtre bi na continué waat benn ci man na théâtre bi continué ndax lu yee sénégalais yi la waaye li nga xam ne dafay yàq jeunes yi ak dafay yàq ndaw yi bu leen ko ci dugal bokkut ci théâtre buñ koy wax dafa nekk loo xam ne dafay yeete pour nga toog di ko seetaan temps bi ngay jël di ko seetaan pourtant am nga beneen loo war a def waaye yaa ngi koy seetaan toogoon pour seetaan ko noonu kese kese kese noonu a jog jëla bu dem li pot wax ku ko seetaan ku nekk dina am lum la yee dina am lum def si yow wala dina am loo xam ne yaa ngi koy dund loolu dëgg la waaye nag yu ses yi ngeen moytu ko tuuti di ko bañ a def ndax yéen a ngi def liggéey bu rafet macha allah waaye bu leen ko def ba dara desul lu may gàcce njaaraam ngeen yàqu ko te lu ci gën a bëri nag théâtre léegi yi da ngay joué lu bëri après dem ba fin ba du am sens yaa ngi wax nag ne théâtre bi commencé gu leen sax maîtresse commencé gu leen sax ñu xam ne commencé gu leen. waaye da ngay dem dañu bañ mu yàgg comme ça ñu wiiri wiiri yàgg yoon ba dootu amati xorom si nit ñi boo jàppee wiiri wiiri sax nit ñi dañu ciibatu te pourtant théâtre bu am sens la waaye yàgg gi yàgg moo tax mu gi dangay dem ba boo koy seetaan da ngay ciibatu kon loolu lañuy bañ bu mu yàgg waaye fin bi na am sens waaye bëgguñ ngeen jouer théâtre fin bi amul sens amul ko comme ça nafi rek nafi dañ ko jouer waaye fin bi amu sens ndax waruñ ñii ne waruñoo dee kii ne war naa dee kii ne waroon naa xam fu kii mujj kii ne waroon naa xam fu kee mujj def ko day dem ba amul chance day nekk werante ci nit ñi ba dootul amati chance waaye théâtre buy jeex dafa war a jeex si am chance ñu xam ne lii la war a jeexee lépp leer na xam nañ lépp lii mu loolu lépp lii ko laloon moo ko taxoon a jóg kon loolu lañ xam ñun ci théâtre loolu lañ bëgg a dund ci théâtre te comme sa Pod tey li nga def nii ñun dañ ko rafetlu trop ndaxte day tax nga xam ni ku nekk luy jikkoom Cheikh Diagne mën na róoram trop rôle bi ñu ko jox mu ngi koy joué macha allah nit ñaa ngi ciy kontaan trop waaye am na yoo xam ne daal nañ ko wàññi ndaxte boo yeete bul jàngale lu bon boo yeete bul xamal nit ñi lu bon ndax tey ku am 10 ans xale bu am 10 ans mu ngi toog di ko seetaan mu ne lii sama yëfu bopp la maa ko moom ku ma neex laa koy jox xale boobu mun nay génn doxee loolu fekk nekkul ñëpp ñoo am xel kon am na yoo xam ne da ngeen koy limité bu leen nangu mu dugg ci day yàq théâtre bi. waaye instant bi ni muy doxee moom macha allah ku ci xool ku nekk di nga ci sentir sa bopp ku xool ku nekk di nga ci gis sa bopp maa ngi jéggalu nag ci vocal bu gudd bi dama ne mënumaa ñàkk commentaire foog ma commentaire fi rek moo tax waaye maa ngi jéggalu baax a baax. salaam salaam waa internet nuyu naa leen mbaa ñu pan si jàmm ça va bien nam naa leen yéen ñëpp daal nam naa leen ñëpp man ci joor laay wax joor soxor na joor soxor na joor jigéen du comporté ni wër na yàlla jigéen comporto yi nii doomu jalgaa lu koy won loolu moom neexul ci xool xol na loo xamante ne moom lañuy ñuy mais fii la jigéen yi war a yeew yeew nag ubbi seen bët bu baax a baax a baax a baax ñu nar a yeew parce que da ngay nekk ci buumu sëy nga sëy xam nga sëy ak divorce benn la mais kenn ñaanu ko mais nga si divorce bàyyi fa say doom xalaatal ni say doom ni ngay bàyyi si ginnaaw lii leen ñuy daj man lii moom ànduma ci dara dara dara ànduma ci bu ma sañoon jigéen ñi defaraat seen toogaay ak doomu doomu seen doomu jëkkër yi man daal loolu laa am pour wax doom doom moom am nañu ko bëgg amuñu ko bu la ko yàlla mayee nga jël toppatoor ko man daal joo jéppi naa ko toora ba ci kanamu yàlla na ma moytu daal su ma dajak moom ci yoon bi dinaa ko dinaa ko dóor de <laughs> baax